أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم mbokk yi ñu ngeen di siyaarewaat bu baax ci weeru koor sell wi yéen yi ñuy topp ci seen bi kun fayakoon nga xam ne ne mooy nekk rek mu nekk nga xam ne ne mooy seen bi nga xam ne ne mujj juddu gën a am doole am doole lool nga xam ne ñépp a jariñu ngir njariñ rekk moo tax ñu créé ko waaye di leen wax ngeen di abone tey sem vidéo yi bu baax ndax seen bi mooy seen njariñ mooy kun fayakoon te kun fayakoon moom ñëpp xam nañ ne mooy nekkal rek mu nekk mooy 236 tey nag ñi ngi ñëw si wala saw fa yuxtiika rabbuka fa tarda wala saw fa yuxtiika rabbuka fa tarda lépp loo bëggul mu jar saafara bi bu ko laal bayra njaay goo xam ne ne boo ko wisoon nit nit sax boo ko jaayee mu jar bayra njaay gi 114 ngay bind wala saw fax yuxtiika rabbuka fatarda mi ngi noonu ma bindal leen pour mu leer nañ eh, adadu jaamihu jaamihu rek boo xoolee jaamihu 114 la lay jox jaamihu nag lu ne mu ngi ci biir waaye nag dañoo ñëw indi leen bayra goo xam ne ne lépp loo xam ne daal bëgg nga mu jar wala bëggoo mu jar saafara bi bu ko laal saafara bi nag bu dee yow mi nga xam ne da nga da see bëgg sax mbooloo mbooloo mi daw wut si la boole kook suufu mars ak suufu jumaa nga sangu si ñetti fan saa boo xëyee del wis si li ngay jaay wallahi lu mu laal mu dem moo tax ñu indil leen ko ndax doon na bayra goo xam ne day xëccaale mbooloo boo ko bindee cent quatorze fois boole ko xorom di ko raayoo foo foo dugg ñu topp la foo dugg rek ñu topp la muy wala sax fan yu waxti karab bu ko fa tardaa